ñoom noonu daal mbay ñu lay nuyu Ndiaye. Eh, maa ngi lay fay aussi di am mbégte ak kontaante. di mhm. nuyu sénégalais yëpp di nuyu la président Macky Sall. Mhm. di ko félicité ci doxantu bi. Mhm. nga xam ni ànd na koog Marème ci anniversaire am. mu tombé jour loo xam ni wax dëgg fa yàlla c'est quelque chose de très important. sénégalais yëpp kontaan. wane ni dëkk bi dëkk la boo xam ni dëkku jàmm la. di la sant di la gërëm di am mbégte. Euh, xam nga jour boobu nag dafa tombé anniversaire. soxna si ñëpp sauf Sonko waaye. <laughs> waa léegi mbay nag loolu la doon laaj. Hmm. mbay ah. perfusion Sonko bi ak ni ko ni koy wet loxo bi noo ko gisee. loolu la doon laaj <laughs> Sonko nandite la. Hmm. ko Sonko dañ ko sotti vinaigre vinaigre moo wax waa ji vinaigre ma. ah Sonko moo ni waaj bi dee xam nga defa tamm yaasa ak kaldu tamm bi nee gara yow wax nga fi nii suppu kànja defoon ci cinam yi ma ne moo moo bi nee lu boppam moo yey nag dafa sonnoon de binéegar ma ñu binéegar ko mu naan perspective day yóbbu affaire yi euh, France pour ñu xool bu ñu demee France ne leen binéegar la <laughs> buñ ko joxee fii ñu ne ko su ko lii binéegar la sotee ko bineegar ba noppi ñëw di bugg a wër nit ñi naan booy dañ ma attentat loo xam ni liquide boo xam ni kenn xamu ko liquide bu dangereux te bineegar la. bineegar dafa fekk du soble rek bu doonoon soble ba léegi loolu na lax na mariner nañ ko. moo mariner boppam. bineegar yow ñu sànni grenade nga ne bineegar leen ma dafa ci loolu ñaari biteel bi mooy kooku def doon wiccax kooku di wiccax am na ko ko arom sax arom. billaay am na ku ko am moo aroon moo aram boppam Sonko na bay caaxaan yi te xam ni affaire bi feebar te xool ko dem bi mu taxawee daan ne mbokk yi maa ngi leen di nuyu <laughs> di wax ni fi mu ni xeex bi dañ koy sensé ngeen tëj boutique yi <laughs> tëj leen boutique <laughs> loolu xeex la jóg li tëjee bitig yi. Mbaye Ndiaye soog koo xooloon nag. <laughs> Ah, ah yow bétti Mbaye dégg nga mu wax loolu. tëj leen boutique yi ah, dégg nga leen. tëj boutique yi sax forme xeex. tëj leen ah, ah wax na loolu kon loolu dégg ah Mbaye Ndiaye ah. loolu loolu xeex yow xeexal su <laughs> ko doon wax garsa garsa mujj ci tëj boutique yi. <laughs> Eh, gis nga xoolal nag gis nga eh, fii nag moom duñ ko moom Diallo la wala. kat dafa am boutique. Sonko boo defu nag defa investir ci boutique de bëgg gaa yi tëj mu jaay ay kenn du fi tëjee noonu. Hmm, waay wax dëgg fa yow mais yow la. lii ma wax ay tëjee boutique bi la traite da ngay génn de Sonko day génn de xam nga. da ngay am problème parce que. parce que boutique yi la wax ci tëj. xeex bi lu demee noonu. waaw <coughs> borom boutique yi di teg bunt bi ubbi buntu kenn. mais heureusement que le 30 day tombé koor gi. kon yow da ngay wax. <laughs> mbokk pul yi. nga bi ni man bi mu toogee ci hôpital bi. ci hôpital bi. waaw naan la. yow ñu sotti la bineega. waaw nga ñëw def sa kii yag def sa kii nee nii ne mbokk yi nañ saa see xeer bi. <laughs> nañ tëj boutique yi loolu xeex la leen boutique yi <laughs> ah yéen it nag wax dëgg fa yàlla nag leen leer xool. xajaa kanam gi daa feebar de. kanamu bineegar la. Mbaye Ndiaye kanam gi daa feebar kanam kuñ dañ koo bineegar. Mbaye Ndiaye moo bineegar lu boppam. Ah, Mbaye Ndiaye lii kanam gi kanam gu sonn la de. bineegar la sonnul. bon leen boutique xeex bi tëj boutique yi. ak grève. Ah, mais Mbaye noo def ba xam ne loolu bi <laughs> bay bay kanam gi kanam ko so eh, mais non li nga wax dëgg man de musuma xam ne nii nga peut-être man ay vinaigre sa bopp xool da ngay am soo la nga naan vinaigre ah. boo naanee vinaigre day sax yow da nga yow mbay est-ce que am nga information mais vinaigre dafa baax ci lacrymogène eh, ah. am nañ fii ab technicien topp ah, buy dem laaj ko saagam bi butéelu vinaigre rang ci top top top top fu mu jëmee manifestation boo ko defee ci morceau boo ko fóonee mes lay def. Eh, ah. bu jógee bu jógee manifestation après. daa ngeen def bineegar ah, eh, la Macky daan ah. affronté kii boobu boobu lacrymogène yi mel nii nag. mais dégg naa eh, mais mbay dégg naa lacrymogène yi dafa sax de. benn la yu Ablaye Wade yi moom la moo. déedéet bii dafa gën a sax dégg naa ne gën koo gën a kaar. Ablaye Wade ko jëndoon. na doo ko laaj ci pet. bineegar ki affaire yi lacrymogène. nan la demee waaw kenn mu Ah, ah. oh, émission bi waaw jeex na mbay léegi émission bi waaw ko def fecc waaw pour mu wax léegi comme fay nañ émission bi des na mbay léegi léegi léegi léegi entre nous ñu mu neen daal ñu mu neen daal affaire nu mu demee nag mbay nu mu demee nag lacrymogène lan lañ ko defaree maanaam lacrymogène ak sonko mi ak liñ ko lacrymogène lañ ko ci biir oto bi ci oto bi ko Oh. ba noppi daal ci dugal su puudaru suy bale puudaru mboot boobu. suy bale bi ak kaane bu mokk pour mbuut mi ak kaane bu af ko ko ci bët. Guy Marius Sagna moo gisoo ko muy dox naan nii nii <laughs> Guy Marius Sagna bu seen maxa woon ndaw seen maxa bu ci kiwis ma Guy Marius gisoo ko eh, calson Guy Marius nag na arrêté. bële de la maye na arrêté. bële na arrêté kii yi. bële gis nga xoolal ñun dinañ def marche bu mag parce que caleçon gi Marie bi wax dëgg fa yàlla ana député ak sumbi caleçon ah, ah. ah quand même nag wax dëgg fa yàlla danañ ci jóg Guy Marie Sagna fii la dindi ma ne caleçon Guy Marie Sagna bi du yoon